dëkk boo xam ne tey kenn rusatul wax lenn yi loolu loolu du sénégalais dëkk boo xam ne kenn respectatul mag loolu du jikko sénégalais dëkk boo xam ne kenn respecté wul kilifa diine loolu xamewuñ ko senegal su ñu demee nag ba loolu di am ba ñuy mën di taxaw di nga xam ne infrastructure yi nga xam ne moom lañ gën a yaakaar muy BRT muy teer muy ay université muy ay école muy ay banque ñu koy toj di ko taal xamewuñ ko woon sénégale kon baax na ñu taxaw seetlu taxaw seetlu xoolaat suñu bopp xool fan lañ war a jëm est-ce que fi ñuy jëm yoon bu baax bi la suñ fa yeggee kenn du rëcc kenn du rëcc parce que tey suñu taaloon bus yi taal euh, terre bi euh, taal banque yi soo xëyee soo bëggee dem jëli xaalis nooy def doo am courant sa kër doo am ndox sa kër ci lan nga ne ci lëndëm nga ne ci coono nga ne ci souffrance nga ne kon est-ce que loolu kenn dina ci rëcc du ci parti au du ci parti de l'opposition du ci société civile ñun ñëpp a ci sonn donc war nañoo mën a taxawaat xoolaat càmbaraat affaire bi lan moo indi lii ak lan moo ko jar politique jaru ko Sénégal lu mu métti métti métti métti crise bu nekk am na fi tension sociale bu nekk am na fi mais dañoo toog waxtaane ko régler ko suñu biir sans pour autant mu am ingérence ba ay député jóge ci assemblée nationale française di am lu ñuy wax ci suñu biir Sénégal le président Macky nekkul na ñoom ñoo ko fal sénégalais ñoo ko fal problème bu ñu mën a réglé Sénégal fii lañ koy régler doomu Sénégal ñooy toog régler ko mais benn doom warul jóge fële di am lu muy wax wala di am lu muy instrumentaliser ba ay puus nit mu jëral leen ñu taal seen dëkk ñoom du ñoom ñooñ di koy wax duñ taal seen dëkk kon bu kenn nangu ay nit nekk sa ginnaaw di la puus pour tàll sa réew mënul nekk ay étudiant parce que man damaa nekk université am fa ñaari diplôme ñaari master 2 ma jële ko FASEC respecté université bi nga xam ne moo tax ma am loolu nekkoon représentant d'étudiant jiite faculté représenté leen au niveau du conseil national de la jeunesse xam exactement lan mooy comportement étudiant à un moment donné après 2014 étudiants yëpp a toog ne dañuy def li nga xam ne mooy le nouveau type d' dinañ kas suñu droit dinañ défendre les étudiants mais duñu saaga du ñu yàq du ñu taal et de lors vous pouvez le constater et vous pouvez confirmer que boobu ba léegi université malgré yëngu-yëngu wi am gisoo étudiant taal gisoo étudiant saaga gisoo étudiant toj mu nekk lu am solo étudiant lu nekk xew na université nit dee na université deewati université étudiant kaas na kaas droit am ba récemment en 2018 bi président di recevoir les représentants d'étudiants mais déggoo ñu ne taal nañ COUD déggoo ñu ne taal nañ amphithéâtre déggoo ñu ne taal nañ pavillon déggoo ñu ne taal nañ ay oto ñu toog président waxtaan ak ñoom ñu ne ok lii am na mais bëgg nañ lii président ci lañ augmenté bourse yi ci lañ wàññi ticket yi mu nekk lu ay mesures yu am solo loolu lañ xamee étudiant donc lii su amee mënumaa dugg ci détail parce que du ma juge nekkuma ci justice enquête baa ngi ci en dañ bàyyi ba xam enquête bi lu muy lu muy lu muy rebere mais mën naa waat ne lii du comportement étudiant parce que dafa am lu tax ma wax ko bi affaire bi amee am na ñoo xam ne ci manifestant yi ay bandi sax laa leen di considéré dañ doon laaj fan mooy pavillon B dañ doon laaj fan mooy rectorat mënuñu sax prononcé wu rectorat lan lañ doon wax rectorat fan la ne kon ñii dëkkuñu université parce que ku am bac un mois saa yoo ko defee université di nga xam fan la rectorat nekk di nga xam campus pédagogie fan la nekk di nga xam campus social fan la nekk mais dafa am lu ci gën a garaaw li nga xam ne depuis 1957 plus de 200000 étudiants yi jaar fac lettres yëpp fi ñu def bureau d'archives ñu ñëw taal ko loolu suñ ma ne étudiant moo ko def duma ko gëm tànk teguma ci sama bët loolu nag lay woo état taxawaay biñ ci war a am. nañ ko def parce que université Anta Diop du université APR du université Benno Bokk Yaakaar c'est une université du Sénégal qui appartient aux Sénégalaises et aux Sénégalais donc liggéey bu ñu ci war a def pour identifier les acteurs les bandits qui ont causé ces actes criminels nañ ko def man loolu rek la ñuy xaar te étudiants yi nga xam ne ñooy les représentants d'étudiants seen sortie yëpp loolu la ñuy demander donc man dama leen di rejoindre ci taxawaay boobu ne leen ne aussi taxawaay bi ñu ci war a def dinañ ko jef et pression bu ñu mën a teg état pour que ñu identifier les acteurs dinañ ko dinañ ko def et dire que plus jamais ça plus jamais ça parce que éducation enseignement supérieur moo réew moo yor réew donc loolu su amul rek réew bu normal lu ngay gis kon ñii objectif bi mooy normalal réew mi parce que li ñu ciblé yépp pour attaquer ko mooy li nga xam ne mooy poumon wu Sénégal mooy doxal Sénégal mooy ñoŋal Sénégal mooy yor réew mi mais duñ ko nangu taxawaay bi biñ ci war a am dinañ ko am ak lu mu jar dinañ ko def parce que Sénégal jar na ko ñoom Mamadou Dia ñoom Senghor dañoo xeex ba Sénégal doon li ñu doon tey donc ay doomu Sénégal ñooy taxawaat pour Sénégal doon lu mu doon doon ëllëg donc loolu laa amoon li ma ciy wax di ko naqarlu di ko ñaawlu jàpp daal ne sénégalais bu nekk ak foo mën a far war ngaa mën a ñaawlu li nga xam ne xew na te ku nekk war a xam ne lii dinañ taxaw ba ëllëg du amate ci biir ci biir réew